askan mi ana lan mooy tegu ci ñoom léegi naka lay doxee seen ëllëg yéenekaay bi moo ko xamle ba tey kàddu yu Amsatou Sow Sidibé li mu yëkkati jëmale ko ci coowal suuf fi ci réewum Sénégal mi ngi ci biir yéenekaay bi point actu dikkaat ak ñun euh, naka noonu itam ilimaani jawri ni Ousmane Sonko ba tey Moustapha Diakhaté ay kàddoo mi ngi ci biir yéenekaay bi la mu xamle moo di sémbu di projet bi nga xam se ni moom la waa Pastef jaay askanu Sénégal ba ba jëy ba jamono ji forage gisagun benn projet boo xam ne jamono ji ma nga ca kanam Moustapha Diakhaté moo ko xam ne nee na loolu moom nañu ko bàyyi di ko wax ndax amul ba tey yéen bi di dikk joxoon ak juróom ci weeru mai des na wàññi njëgi dund gi loolu nag amul benn jéego boo xam ne tegal nañ ko jamono ji Boubacar Camara ay kàddu ci biir yéen bokk na ci lam leen xamal moo di ak dal lay laaj moo di ànd ak dal ak tey la ko waral moo di jamono ji wax dëgg yàlla ay coppite nor naa am ci réewum Sénégal muy kàddu yi Boubacar Camara ci xët bu njëkk yéenekaay ba tey bari nu yéeglekaay ak la mu xamle ni ki tey jii mu di Sud Quotidien yéenekaay bi di ko ñun dañoo xamal ni la fi xewoon jëm ci mbirum Prodac dox ci diggante usman Sonko naka noonu itam ak Mame Mbaye Niang yéenekaay bi dañoo xamal ne looleen dafa mel ni taxaw na temm ngir sulliwaat ko ginnaaw tuuma yi nga xam si ni Ousmane Sonko tegoon na ci kaw ndodd Mame Mbaye Niang ni dafa luubal xaalis boo xam ni eh, jëm na ca Prodac nag eh, moo di Mame Mbaye Niang demoon leeral mbir ma na mu doxee ci dëgg-dëgg ngir ñu mën a xam ca dëgg-dëgg mbirum Prodac Kaolack naka la demee ba tey ki xam si ne moo di Jean Pierre Senghor ay kàddu mi ngi ci biir yéenekaay bi moom itam moo njëkk nekk coordonnateur bu na ko sàkkoo des na ko def noonu la ko xam ne ci biir yéenekaay bi ba tey les éco yéenekaay di ñu dañu xam ne lu jëm ci rapport yi nga xam ne fës na la xew ca ONAS moom jéggi na dayo yéenekaay bi moo ñu ko xamal mu di les éco yéenekaay bi lam ñu xamal moo di ONAS la fa xew moo di Mamour mu dénk jox li nga xam si ni ki nga xam si ni moo di Cheikh Dieng dafa mel ne pataas bu tàng jër ndax bàyyi na fa ay jafe-jafe yu bari yoo xam si ni Cheikh Dieng ngir mu lijjanti ko na doon jafe-jafe ci moom la ko waral moo di foofu la ca la fa xewoon ci ay mbir yu yéeme naka tam li nga xam si ni rapport yi fësal na ko jéggi na dayoo la ko waral moo di koppar yu takk dañ ko daan génne di ko dugal ci loo xam ne wax dëgg yàlla solo si bari loolu bu fekkente ne am na solo sax lañ ca daan dugal ci xaalis ca dëgg-dëgg dafa jéggi woon dayoo yéene kaay moo ñu ko xamal ba tey bi euh, maanaam euh, yi ñuy amal mu di bërgu rëy vacances ngir xale ña fay liggéey ko ñu ko xamal ni ONAS nag la fa daan fay ña fa doon liggéey maanaam payoor yi wax dëgg yàlla dañ ko daan taw yi ba na mu leen neexee yéenekaay bi lépp dikk na ci di ko faram-fàccee mu nekk rapport boo xam ne rapport ci mu nekk mbir yu doy waar ba tey yéenekaay bokk na ca lam ñu xamal moo di ña nga xam si ni wala boog xaalis bu takk toll ci ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñett ci ay millions yoo xam ni génnee nañ ko ban ko génnee nag kenn xamul jamono ji ana fan la dugg maanaam kenn mënut duut baaraam ni xaalis bi fii ak fii la jaar yeneen yu bi di ñu ko xamal foofu la ci commune bu Dakar Plateau ba tey beneen yéeglekaay ak la mu xam ne ni ki tey ji mu di bés bi la jour jour yéenekaay bi euh, dikk ñu di ko gën a faram-fàccee mu nekk ay mbir dañu euh, euh, xamal ci a ko rapport yi nga xam ne fës na ba tey yéenekaay bi dañu xamal ni bari mairie yoo xam ne tudd na leen bokk na ca mairie mu di mairie bi nga xam si ne moo di bi Ziguinchor bu Ziguinchor yéenekaay bi ba tey yéenekaay bi dippee ko ni ko ñu xamal ni waa léegi rapport yi ginnaaw bi ñu jiitum réew mi sàkkoo ñu génnee ko ginnaaw bi ñu ko génnee ba noppi am na ñoo xam ni joxoñ leen ay baaraam nit ñi dàq nañ ci ni nga xam si ne noonu naan doxalee moom askan wi jaaru ci aw yoon léegi ñooñu ana fan lañ mujj ba tey yéen bi jàppee ni njiitum réew mi nekk wala bokk Pastef ah, bu ñu defee loolu wax dëgg dañuy mel ni kuy ah, juwoo ak seeni wax noonu la ko yéen kaay bi jàppee daam buj ay kàddu mi ngi ci biir yéen kaay bi la moo xam le moo di amul kenn koo xam ne nag war nañ laa teg daray daan bàyyi Macky Sall Macky Sall mi nga xam ni moo fi nekkoon teg leen ñoom ñuy doxal lépp lu fi xew ci ay lieu xor moom Macky Sall jàpp na daam boo jàpp na ne Macky Sall moo ne ca bopp ba kon lépp loo xam si war nañ ko teg kenn Macky Sall moo ca a jiitu ko tegoon Macky Sall rek juruñu koy teg kenn noonu la ko daam bu xam ne ci biir yéenekaay ba tey le soleil dikk ak xamal njàmbat loo xam ni ñu mbëkki woon jaar ci géej gi yoonu ndox mi Barça wala Barsax ñoom ña ngay juddu coono yu metti foofu le ca île Canari euh, yéenekaay bi ma ñu ko xamal di le ñoom jamono ji ña nga fa nekk taggat témbe demul dikkun ak coono yu bari bari yoo xam ne ñi ngi ko jànkoo wooteel bokk na ci ñoom ay kàddu seen i kàddu mi ngi ci biir yéenekaay bokk na ci la ko woo di ko laaj ay njàmbat yoo xam ne mi ngi koy euh, laaj ngir saafara waaye ba tey koo saafara ba tey kenn moom it ay moo di ñàkkul ni fii ay fan danañ mën a mucc wala ñu am lu ñu bëgg ba tey keneen koo xam ne mi ngi ci biir yéenekaay bi la moo xamle moo di moom euh, bis bi nga xam ne ci la war a def ay jonganteem di examen mu di katte euh, la moo xamle moo di examen yu BFEM moom ci la jël gaal gi daal di dem mu di bis bu mu ko waroon def ci la jël gaal gi daal di dem mbëkki wutali Barça wala Barça ko noonu la ko yéenekaay bi xamle ba tey beneen yëglekaay ak la mu xamle ni ki mu di euh, BRT beeg na mu war a demee dëgg-dëgg ak na mu war a demee euh, noonu la ko yéenekaay bi di Dakar Presse di ko fàccee ba tey yéenekaay bi lam ñu xamal moo di ñeent fukki dërëm wala bokk juróom-ñetti fukki dërëm euh, di 400 francs moom nga war a fay juróom-ñetti fukki dërëm bu fekkente ne da ngaa jóge ci bërëb bi nga nekk maanaam diggante bi nga nekk fi nga yéege war a demaat ci digg wala te génnoo diggante boobu le juróom-ñetti fukki dërëm ngay fay waaye bu boo xam ne wuute nag euh, fa nga dëkk di beneen koñ euh, na téeméeri dërëm ngay fay noonu li koy yénekaay bi xam ne ba tey yénekaay bi di ko ñu xamal ni altine ba xam si ni moo di BRT bi day liggéey day dem ak dikk ba tey yénekaay bi di ñu heure bi nga xam ne moom lay xëy heure bi mu wàcc mu di juróom benn fan ci juróom-benn waxtu ci suba naka noonu itam jàpp 21 euh, heures mooy heure bi muy liggéey ak heure bi muy wàcc noonu la koy yéenekaay bi xamle ba tey euh, tàggat yaram moo ci topp Baye Birahim Touré li ëpp ci yéenekaay yi bokk na ci la ñuy xëy tey mu di rapport yi rapport yi rapport yi rapport yi ginnaaw bi njiitum réew mi bi nañu ko génne rapport yu bari génn na fi mu moo xam muy IGE Cour des comptes ba ci OFNAC am na ñoo xam ne dut nañ leen ay baaraam waaye ñi ëpp jamono ji dañuy laaj mooy léegi fan lay mujj tur yi bari na waaye amagul benn jéego boo xam ne amaa nañ ko jëm ci wàllum yoon waaw euh, dañuy nuyu Babacar Gaye mi bi bi teew ci ci plateau bi xam nga euh, rapport nit day def ay enquêtes ñu ne la nag am na ay rapport ñu ne la Cour de compte am na ay rapport euh, ak yeneen i kuréel yu mel noonu yoo xamee ne ku ci nekk inspection générale d'État